tey yaakaar naa ni yegg nañ foo xamante ne foogewuñu ko woon ndaxte dëgg la ak euh, période bi ñu toll nii ak yëngu-yëngu yi xew ci réew mi ñëpp umplewuñu ko waaye nag sant nañ yàlla ba ñu yàlla woyofalee mbir mi ba ñu mën ko cee xejal ba tey actuellement nii ah alhamdulilah dañuy sant yàlla daal parce fa ñu foogee ne duñ fa yegg tey yàlla dimbale nañu ba ñu am loo xamante ne vraiment gën na kawe suñuy njort kon loolu moom sant yàlla la voilà euh, y a neuf euh, yi nga xamante ne ñoo ci bokk te tey euh, li tax ñu impliqué leen ci biir mooy objectif bi sax d'ailleurs mën naa ne sax feebar bee tax sax mënuñu ko atteindre à 100 pour cent li tax mooy parce que dañ ko boole woon journée culturelle mais malheureusement pour nu comme xale yi nag tollu nañ benn instant ku football ba yegg final ñu lay xaarloo dañuy dem ba yaakaar ne amaanaa final bi duñ ko fubal waaye nag sant yàlla ba système bi demee ba am compréhension ne leen nag léegi dinaa organiser wu à telle enseigne bu ko defee ngeen mën a finale wu mais sama programme man dinaa ko indi te am naa yaakaar ne incha allah ci kattanu suñu borom eh, lu jiwoo jeexul rek jógu fa te dana gën a neex fii. ndax euh, bii première édition la te comme nag am na loo xamante ne moo wàññi doole bi moo tax fu mu nekk nii tey vraiment euh, du ñu def rek lu dul di ñaan yàlla yàlla jële fi mbas mi nga xamante ne tey gàllankooram yi mu def ci réew mi bari na lool. waaw jafe la am te euh, question boobu nag dinaa ci sawar a tontu lool. jafe-jafe yi ya ko am euh, mën naa ne bari na li tax mooy parce que benn xaw nañoo enclavé ñaareel bi moo di tey suñu commune bi euh, maanaam toll na foo xamante ne maanaam mu ngi soog a door amagul doole te aussi ñu ngi ci wutum partenaires yi nga xamante ne tey gis naa ni dëkk bi tey. am na ay talent caché yoo xamante ne pour te dire que gëm naa ni bu fekkonte ne tey yàlla dimbale woon na leen ñu am ay partenaires yu leen man di jàppale leer na ma ni instant bi fu ñu tudd tey Sadio Mané dinañ fa tudd xale yi nga xamante ne ñu ngi laqu ci ginnaaw saajo te feeñaguñu ba tax nag aussi tamit je lance un appel solennel à tous les partenaires comme quoi que ni ya olof il tend les mains mu ngi tàllal di ñaan yàlla képp koo xamante ne aussi tamit yaa ngi. taxaw ci tànku dimbalante ci wàllu sport Yakou mu ngi lay tàllal ay loxoom ci façade yi yëpp aussi jeunesse bi ñu ngi ciy yëngu moo xam ci wàllu culture la moo xam ci wàllu élevage la wàllu maraîchage côté yooyu yëpp foo ci laal Yakou daal mi ngi ciy dem kon nag dañoo amagul vraiment li nga xamante ne soxla nañ ko à 100 pour cent mooy boo déggee peccum liir neex na ndey jaa jàpp ca mbagg ya amaguñu nag ku ñuy jàppale. jafe-jafe yi ñu fi am jafe-jafe yi fi am mooy dëgg la dëkk bi. ñun ci béy la ñuy dund benn ñaareel bi moo di euh, dëkk bi ñu ngi jàngee ji ci commune u Diakounda te amuñu école suñu xale yi bu sedd bi ñëwee da nga leen di yërëm parce qu'il marche des kilomètres pour mën a yegg fi école bi ne un deuxièmement tàngooru naaj bi rek ndeysaan boo dajeek ñoom ci yoon bi sax sa yaram day daw ba tax nag aussi fànn woowu vraiment bokk na ci jafe-jafe yi nga xamante ne mooy priorité ñu ngi koy xeex depuis bi ñu taxawee ba léegi bi maire bi falo ba léegi ñu ngi koy wëy ak moom mais moom tamit ba léegi xëy na dafa yeggagul fa mu war a yegg pour ñu am loolu ñaareel bi moo di suñu jigéen yi tamit euh, dëgg-dëgg Diakounda moo am benn district de santé te distance bi xëccu na tey ku ci toll ci yenn jafe-jafe yi pour nga yegg fa vraiment day xaw a metti lool ñaareel bi moo di béykat yi ñeme nañ ko te moom lañ fi xam suñu maam ci loolu lañ ñu yar mais nag problème bi mooy amaguñu moyens yi nga xamante ne vraiment moderne pour gën a yokk suñu kattan ci suñu xam-xam ci wàllu mbéy mi. bon pêche bi aussi ñu ngi ciy yëngu ndax yàlla dimbale nañu benn dex goo xam ne tey ah macha allah tund bi yëpp suñu waas yi xam naa balaa ngay dem dinañ la ci ñamal. boo ko ñamee di nga toxamte ko loolu moom wër na ma te côté boobu tamit ñu ngi ñaan état mu jéem a gestu base bi nga xamante ne ñu ngi ci àll bi vraiment soxla nañ dimbal nag ñu ngi lu def seen propre moyen mais nag soxla nañ aussi tamit vraiment ku leen jàppale jàppale bi moo di lan nga jox leen les moyens nit ki nag balaa nga koy may jën chaque jour jàngal ko ni ñuy nappee te soxla nañ nag ku ñuy jàngal ni ñuy nappee mais moo gën ku ñuy may jën chaque jour daal loolu daal vraiment bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne dëkk bi tey ñu ngi koy dund muy ci maraîchage bi muy ci euh, culture rizières yi muy ci les travaux champêtres ñaari fànn yëpp góor ñeeg jigéen ñi ñu ngi taxaw sonn nañ lool nag te soxla nañ ku leen dimbali te ñu ngi tàllal loxo di ñaan à tous les autorités au Sénégal vraiment ñu gestuwaat ñi nga xamante ne ñu ngi ci biir àll yi c'est pas parce que nekk nañ ci biir àll bi rek bokkuñu ci réew mi de déedéet tey boo xoolee li ñuy li ñuy def ñun. tey ñi ne ca taax ya croiser seen i bras sax dëgg la bu dee njàmbaar ngay seet demal ca àll waaw je vous remercie.